laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah faal laa ilaaha illallaah laa ilaaha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 إله إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha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

ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله auzu billahi mina seytaan rajim laa hawla wala xoota illaa billaa aliyu sim barke Cheikh Serigne Assane Fall ah, asalaamaaleykum wa rahmatulah barakatu liggéey bi da moom day liggéeyum ndigal ndax ay tabaski su dee ci shariatul mutaharatu sunna la waaye bu dee ci yoonu murit rawatina nun ahlu Baay Faal farata la ndax nun lii sunu farata mooy lépp loo xam te ne borom Touba mos na koo sant maam si Ibrahima Fall digal ko ko loola sunu farata te ki nag borom Touba moo ko laajal maam si Ibrahima Fall baabu muridiina njaarim nag la ko ko laaje bañu fa dajee ba ma ko ko laajee saalam si saan nag laaj na ko sax ne ko ndax moom war naa Tabaski ma ne ko ah kay li fi nekk da koy indi soo indee li fi nekk ba dellu loo fa fekk sañ ko ko rendi kon ab Baay Faal la nga xamante ni muy am Tabaskeem mooy xar mi nga xamante ni moom la yët mooy xar yi mu yët mm-hmm. borom Touba Xaadimu Rasuul xat yi mu jët borom Touba Xaadimu Rasuul nag mooy tëbaskim Baay Faal boo yëtee xar mi nga yët sëriñ sëriñ bi mu teg ko ci loxol borom Touba ndegam mu nga fa xar ma ngay réy sa kër ndawal rek la Baay Faal ndawal la war a am wërtu am am tëbaski ci këram soo joxeem tëbaskim ba noppi nag soo ko neexee dem ca taabal ja peesa ndawal su ko neexee bokk bokkaloo ndax mag ñi daanañu def ndax man ci dëkku réewum Baye Fall laa yaroo suñu joxee sëriñ bi seeni tabaski ba noppi ñu jékkuwul ki dañuy rey aw nag daal koy loolu moom moom lañ tudd mata def ko ay saam ku nekk jënd yóbbu si ko toggi li waral loolu mooy ndigal li mu jóge ci ko baax ki borom Touba Xaadimu Rasuul ñëw ci maam si Ibrahima Fall te lépp lu jóge ci sëriñ bi ñëw ci Cheikh Fall noonu suñu farataa kon mun mun ku mu mën a doon sunna ci yow sunna waaye sunna faratay njabootu maam si Ibrahima Fall sëñ Amdi Xadi Fall nag day wax ni nun Baay Fall juróomi farata la ñu am benn bi mooy tabaski mii ba ca des mooy ndogo yi nuy togg ndax ndogu yee tam ci kaddu ko baax ki di borom Tuubaa Xaadimu Rasuul la bàyyi ko ñëw ci maam si Ibrahima Fall ba ca topp mooy gàmmu gi Sëriñ Tuubaa moo ko digal maam si Ibrahima Fall ba gis nga ne mu daan gàmmoo ca kees lim limu kaamil yi ñu daan jàng ci suuf lal ko ci ay basan limub kaamil yu toll noonu saa maam si Ibrahima Fall daana ko jàngaloo ci kaw garab yi ca kees kon kon muy ñetti farata yi tabaski koor gàmm ba ko ñeenteel mooy màggal gi teraanga yi màggal gi bi ko borom Tuubaa santaane mooy sunu ñeenteele farata ba ko juróomeel muy adde yi ñuy laaj moo xam dañ lay tabax la mooy dañu laaj adde yi lii mooy farata kon nag looloo maam si Ibrahima Fall nag daan def jël tabaski yii da ko yëpp borom Touba Xaadimu Rasuul ci njaarim ba mu fa bàyyi ko tam mboolam ñu ko fi wuutu tàmbali Serigne Mamadou Moustapha Fall taawam bu baax ba te Serigne Mamadou Moustapha Fall mu Serigne Assane Fall ñoo bokk ñaari wayjur ñoo bokk maam si Ibrahima Fall ak soxna Astou Syll moom itam di ko jël di ko jox bi euh, bi maam si Fall bàyyi ko ndax bi ku baax ki demee. maam Cheikh Ibrahima Fall dafa wéyali liggéey boobu di ko jox moom Mamadou Moustapha Mbacke alayhi salaatu wasalaam radiyallahu taala anhu bi maam Cheikh Ibrahima Fall demee 1930 Cheikh Mamadou Moustapha Fall jël lim boobee di ko di ko wéyale di ko jox Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ba Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke dem mu di ko jox Serigne Fall 1950 la bàyyi la wàcc ab liggéey moom Cheikh Mamadou Moustapha sëñ Mor Talla Fall doxale ko ñett mbaa ñeenti at ba Cheikh ablaay Fall Ndar ba ci Assane Fall nga xam te ni sëñ Assane Fall nag liggéey boobu naka jekk bi mu nekkee kees itam te doonul xalifa général itam nii sëñ am na xel di sëñ am na xel di Fall di liggéey noonu daan liggéey sëñ Assane Fall nag waxan nanoo ni a ah, jamono boo di jël sa jëf de ko sotti fi ñëpp di sotti seen jëf ñaari mbir doo ngay mën a am ñu ñu naw la mbaa ñu xeeb la te ñu xeeb la dara jaru ko moo tax suñ am na ko di faal lu mu lu mu mën a def ba ñu naw ko ngir jëmmi sëriñ Assane Fall dina ko def kon nag lii te nee nee mennam xar soo ko indilee sëriñ bi yéene woon na junnee xar da ko mën moo tax sëñ bi doo dégg mu limu xar yi nee na li tax mu mu ni ba kenn xar yi mu indi ndax bu ku yéene junni am benn kon benn boobu bu ñu ko tuddalee day mel da ngay am kersa ci moom waaye nee na nag yàlla amul kumpa sëñ Amdi Xadi Fall dinaa yàlla amul kumpa te ak taalibe amul politique de wax ne ko nekk si la nga war a nekk du la xañ la nga war a am yàlla amul kumpa nag alxuraan la laa tudrikul absaaru te yàlla te yàlla lay jëfal kon nag liggéey baa ngi nii sëriñ bi ñu xar yi jóge nañu njaariñ ñëw na ci Cheikh Mamadou taqa ah, dégg nga maanaam ni mu taree sëriñ bi ak njabootu sëriñ bi ni sëriñ bi yàgg naa ko bégee yàgg naa ko wéttalikoo na ko xamal ni ngërëm ngërëm rek moo ko fi nekkal loolu alhamdulilah bu ngeen demee na ngeen ma ko waxal te nun ngërëm la ñuy sàkku ndax mboolem lu am murit di sàkku ci ci ci ci yoonu sëriñ Tuubaa wii ma maanaam cir bi ci gën a rëy ngërëm amul ndax borom moo wax ni riddan wa rahmatan min allahi al badi xayri min dunya wa oma fiha jami te Seex Sëñ Muntaxa nee na léegi na ngeen ma xamal si Ibn Khady Fall ni fii ngërëm dong moo ko fi nekkal kon loolu la doon wut alhamdulilah yan na ko ci yàgg am nag waaw ah, ndax Sëñ Ibn Khady day wax ni ngërëm yi waaw góor yu bari rek Sëñ Ibn nag ni mënul digal moom ca la nekk Sëñ Ibn Khady Fall dafa wax ni boo dee liggéey sab sëriñ ba mu la ni waaw góor na nga jël waaw góor du joojo def ko ak laxasaay feddlee ko sa pos-pos fas yéene sàkku yeneen waaw góor kon waaw góor sëñ Mouhamadou Mountakha jii tey jii sëñ Amdi Khady Fall dolli na ko ca pos-pos ba mu fasan ngir fas yéenee ànd ak moom liggéey sëñ Touba ak maam si Ibrahima Fall kon daal liggéey baa ngoog nga ñu ñëw fii ci daara Hizbut Tarqiyyah ci euh, gétt gi ñu ngi wàccee xar yi fa tabarakallaahu yal ñel na ko am Amdi Khady Fall yàgg indi yàgg fee fekk sëñ Mountakha yàgg ko jëbal moo yàgg ko nangol kenn ku ci nekk li nga bëgg ci sa wéjur li sëñ Amdi Khady Fall bëgg ci Sëriñ Assane Cheikh Mamadou Mountakha bëgg ci bëgg ko ci Cheikh Mamadou Bachir yàlla nañu ko am waaye seen maam yaa diñ ci bëgg li si am na kadi Fall bëgg ci maam Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Mamadou Mountakha bëgg ko ci borom Touba yàlla nañu ko am waaye seen maam yooyu ak seen wajur yi li ñu bëgg ci ñoom ñoom it nañu ko am ridan wa rahmatan min allahi badi xayri min dunya wa ma fiha jami ya rabbana habli bi aqil kawsar min hayatu ujub ku joori ko Waaleykum salaam